léegi noo gisee làmb ji fi mu toll nii. waa làmb ji ni ma ko gisee mooy euh, man ci sama xalaatu bopp ak sama conscience bopp mooy làmb doxut. làmb doxut lan moo ko teree dox. non li ko teree dox mooy problème yi bari na ci li da daan accompagner làmb manqué na ci làmb mooy sponsor ñëwatul promoteur yi bu ñu tëgg làmb dañuy risque parce que seen poste la ñuy demee amuñu tey financement boo xam ne si tey. mën leen mën na leen a seconder wala mu soutenir leen amuñu ko. Mhm. moo tax làmb metti moo tax promoteur yu bari tey soo xool sax làmb moo leen daaneel. promoteur bari yoo xam ne si tey tolloon nay temps ñu ngi ci seen liggéey di liggéey di am loo xam si tamit ñi ngi ci sant yàlla mais biñ duggee ci làmb rek la ñu commencé am problème parce que nag Lamine làmb dafa am ay kàmb yu nekk ci biir yoo xam ne si tey soo ko maîtriser wu rek doo ci génn doo ci génn muy ci côté promoteur yi. ñàkk yenente jàmm la ci am muy ci côté mbër yi yaa ngi dégg ma lax muy ci muy ci côté manager yi yaa ngi dégg ma lax muy ci côté ñi nga xam ne si tey encadrement ci géli ci ci làmb ba ci journaliste si ba ci géwél yi micro yi nga xam ne ñu ngi ci làmb làmb dafa bari loo xam ne dafa dafa doy waar ci biir mm-hmm. yaa ngi dégg li ma la mm-hmm. bu njëkk nag bi làmb di dox booba kenn loolu kenn lijjantewu ko léegi làmb nag dafa dem ba instant boo xam ne si dafa def stop léegi nag ñuy soogoon nag def retrouvaille di di xool faay yooyu ci amoon te pourtant bu ñu amoon expérience bi loolu yëpp mënoon nañ ko lijjanti avant ñuy egg fii ñu egg si te man sama conscience bopp yaakaar naa dix ans ci kanam lay làmb di lay làmb di réparé waat. mais du instant bi non si. parce que xamul tax. kon saison bi du du du non parce que xamul tax. Euh, CNG ñëw na fi Alioune Sarr di nekk defar na. du ma ni defarut mais soo xoolee Alioune Sarr dafa defar bi ci biir mu arrêté li mu defaloon lu baax li ci li mu def li ci des lépp lu bon la. mu yàq. mu yàq parce que ay mbër lañu woon. Mm-hmm. nekk ci làmb di ko dund. di def loo xam ne tamit day tax làmb avancé xam faay yu baax yi xam faay yu bon yi. Mm-hmm. yaa ngi dégg li ma la. looloo tax lu bari ñun xam nañ ko ci. Mm-hmm. ba tax na man su may wax. ragal lu ma wax man damay wax parce que su ma sañoon tey làmb baax su ma sañoon suñu rakk yi ci nekk tey du ñu xalaat dara mais metti na ci ñoom trop barki yàlla dafa metti ci ñoom trop lu ñuy dund ñoom rek ñoo ko xam dañu ay gor nag. dañuy waxul rek. dañoo waxul dañu ay gor. mais làmb dafa métti. Uh-huh. dafa métti te tey fii làmb toll noonu ñoom ñoo tax mu toll fa. am na lu ma la fàtte laaj sa sa jógee écurie Thiès dem écurie Lansar lan moo ko waral. waaw sama sama jógee écurie rek moo ko waraloon mooy yàlla dafa dogal bi ñu fi nekk fii dama nekk mbër boo xam ne si daan naa damay peser ay cent vingt kilos cent trente kilos ma war a bëreeg pakala mu nekk ay cent trente cinq kilos foo faut ma am ponkal mu may jàppale. contact loolu loolu daf ma brisé woon daf ma daf ma maanaam daf ma daan yàqal ci combat yi bari. looloo waral tey Max Bargane woo ma ni ma ñëwal nga am ñoo mën a contactal ñu man laa seconde ci say combat loolu rek moo taxoon mais du leneen. après da nga faa jógewaat ñëwaat Thiès. waaw non ma même bi ma nekkee Lamsar bàyyiwuma sama gars yi ma nekkoon fii bu combat jotee ñoom ñëpp ñu naan ànd ñu ñëw jàppale ma. Mhm. mais manqué woon ku ma contactal moo waraloon tey mag si jëlee ma fi yóbbu ma ba Thiès parce que loolu nag dafa ma manqué woon parce que mënoo dem tey bay bëri bay peser cent trente kilos. wala bë wala bëri benn cent quarante kilos. Mhm. munoo am koo xam ne toll na nga contact ak moom kon su boobaa tey boo demee doo ci génn. munoo contact mhm. loolu moo taxoon ma jóge fi tey dem équipe Lamsaar. ok loolu am na solo waa équipe Lamsaar tamit nekk ñu baax nekk sama ñu nekkoon tamit benn équipe boo xam ne équipe bu suude la xam nga mais yàlla dafa dogal moom seetal moo fa gën a nekk suma gaañ. te sa boobu ay ñoom Siteu ay ñoom Maama ay Boyles ay Nicorel lu ñooñu ay booy la ñu woon quoi. Hmm. ñun ñoo leen tette ñoo leen jàngal bëre ba ñu toll fi ñu toll tey. Nicorel lu noo gisee. yaa ngi wax ndaanaan mais yàlla dafa dogal dafa amul chance ci làmb. moom Marley saxoon. moom Marley na am ndam parce que kooku moom moog Balla Gaye sax tiituma ci moom. Nicorel mais mais loolu ma ci Nicorel lan sara ñëpp mën a bëre Nicorel la ñu. déggoo li ma la wax. billaahi wal kitaabi moo Balla Gaye tiituma ci moom. kooku dafa am don wu bëri yàlla moom moo ko may. mën naa daan Balla Gaye. barke Rasuul laay. billaahi wal kitaab bi bo non boo leen yóbbuwoon ci terrain takkal leen gémm toogal di leen seetaan da da koy daan. Ah. loolu da yàlla moo ko may don wu bëri moo nekk ci ni ko réel da koo mënta mënantuwu ko. da koo mënta mënantuwu ko. suñ ko boolewoon Balla mu daan Balla. déggoo li ma lax wax da koy daan man maa lool moom mën naa cee teg man suma xaalis. foogale boo waxee mu ne micro mooy mbër mi. parce que dañ daan nekk entraînement di contact te ku ci nekk da lay ñamal. Tidiane Faye neen Négorél moo ko dàq bëre nekk da la daan ñamal. ñun bokkoon di takkandoo ngeem di kontaagandoo guddeeg bëccëg suba ak ngoon. kon amul ku ñamul ci yéen. déggoo li ma lax ñëpp a ñam man man man maa toog di wax ak yow. naa. yow de nga wax ragaloo ko. ah lu ma ciy ragal. mais dañ daan contact di entraîné di jàppale suñu biir. mais amul kenn ku mbërum lamsaar ba ci nees sax ñam na ba tay ci Négorél ku ñëw mu ñamal. ok. mbër waada la kaamil la xam nga lan mooy problème am ñàkk chance loolu day am ci loolu am di nga doon mbër mais doo am chance. kon bu amoon jàppale dëgg-dëgg. léegi bu amoon jàppale dëgg dëgg dëgg dëgg grand champion lay doon. te pourtant suy bëri day andi mbooloo man loolu jaaxal na ma ci buy bëri day andi mbooloo. waaw. Mhm. parce que waa ko ñoom dañ koo gëm. ba pare mbër la. lenn rek mooy problème am mooy ñàkk jàppale mais grand champion la wax fa dëgg yàlla. en plus adversaire nanguwuñ ko jël. duñ ko jël parce que xam nañ ko. xam nañ ko Marley Marley lan mooy ay sens am ci Nicorel. non man Marley gisuma sens am ci Nicorel dañuy waxante dëgg rek Marley xam naa ko xam naa ni mbër la xam naa ni champion la xam naa ne am na ay mbokkam mais Marley yow yaa ngi bëri ko xam ne presque deux mètres la mënoo koo song mënoo koo dóor mënoo koo paqueté mënoo ko takk fan nga koy jëlee moo la dàq bëree moo la prolonge amul sens man de dama part à personne. Hmm. du question que li ma bokkal Nicorel la moo tax may wax. Hmm. mais comme maam marle mm-hmm. ak ni ko la. Mm-hmm. Marley amul benn sens. Mm-hmm. amul sance ci combat boobu. Modou Anta kii Modou Anta euh, waaw Modou Anta Diène Kairé combat boobu naa ci def analyse mais analyse bi ma ci def mooy ku ne xam ni ñun Modou suñu rakk la. moom la ñu am. comprendre li ma la. waaw làmb tëree moo tax Modou Anta bëreeg Diène Kairé mais du ñu ay adversaire. Ah? ndax Modou raw. ndaanaan ni Modou Bare Diène Kaïré bëreewul ak moom. Boy Sey bokkuñu adversaire dëgg la Boy nu mu def Diène Kaïré benn waay la ko def. ah da koo da koo magu moo daan tax nu mu nu mu def Boy Sey. waaw ah, prix dib la ngi noonu xam nga nag làmb ji mooy li ma leex léegi xam li ma leex léegi ñëw na parce que làmb moo waxul dëgg. làmba yàqu làmba problème làmba am crise bu garaaw. mais nag booy bi ngeen di bëreel dafa lewet ci bitti mais ci biir géew moom. non non d'accord d'accord gaynde la ci bi d'accord yooyu yëpp am na mais man daal du question damay far nag damay analyser tey wax li nga xam ne moom moo fi nekk mhm. malgré Modou suma rakk la mais bu dee caay-caayu mbër Modou ko ëpp bu dee Baye Fall la Modou ko ëpp Baye Fall man li ma gis ci làmb ak li ma analyser ci moom Modou ko ëpp lépp ci làmb wax fa dëgg yàlla bëre nag reenu ñàmbi la koobu doole bëre reenu ñàmbi la koobu doole doole Modou moo ëpp doole. waaw. ku dàq bëre. bëre bi Diène Kairé di bëre ak bëre bi Modou Modou Anta di bëre déggoo déggoowuñu ñoom ñaar. kan la ci bëre moromam arrangé wu. bu runkum bu nu dajee ñoom ñaar. Modou ëpp 1000 avantages. bu jàppante amee. bu jàppante amee. buñ taxawee xeex. bu noo Diène du xeex. Diène day xeex de. non xeexam demewul noonu quoi. ñoom booy yëpp dama leen di ñoom ñëpp ku ci ne xam naa li ngay bëre. kon moom lu mu doon def ci mu daan bu dee yooyu yëpp amu ci non parce que xam nga mbër bu la rawee da yàlla dab ko parce que boo xoolee Quench la mujjee bëre te dañoo niil te boo xoolee sax combat bi ma ko seetaane yi fa jotaam sax Quench moo ko fa yaa ngi dégg li ma la. Mm-hmm. léegi moom day doomi mbër. boo bokkul Dakar. <laughs> li ma la wax man dama ko dund ba taay. waaw boo bokkul Dakar jéemuñu la boole ci làmb gis nga Bombardier mi day gaynde rek nekk jàmbaar. nekk jàmbaari fakk tëgg moo tax mu ñafe boppam ba am place am. nekk roi des jaar Samba Loro mii ci la jaar. ajal daan tamit ci la jaar. léegi yow soo bokkul xam nga loolu lay jàppee wadd gi promoteur bu jóg. waaw ah. naa la xaaral moo xoolal la xoolal la mbër muñ la war a jox pour mu rey la dañ lay wutal yoon. soo xoolee combat Modou Anta bi ak Diène Kairé bi looloo ko waral Diène la ñuy wutal yoon rek. waaye fi waaye non Modou am na fulla ak fayda xam na li mu bëgg xam na li bëgg. ok ñun ñëpp dañu topp ci ginnaaw dañ koy jàppale. yaa ko tudd sànq Coins am na combat moom tamit. Coins kan la war a bëreel la war a bëreel double moteur waaye Coins day day moromu double moteur. yaa far de. non du ma de. lamb laa lay analyser barke Rasul laay. lamb mais lamb ju neex ngay xaar foofu ambiance ak mbooloo mu bëri. yow fa ku fëgg la jàpp dóor la ba ngay raam. yow ah. Coins mi nga jël di ko tëkkaleeg double moteur. Baba Diaw dee leen boole. Baba Diaw xanaa leen Coins lamb tëri de rek. Coins bañ a ane balaas ak ci li mu jógee te wax na dëgg ndax mbër da ngay am staff mbër da ngay am encadrement gis nga Quench nañ ko xaar tuuti dafa bokk ci catégorie ñoom Modou Lo yi nañu xaar Quench. ma Moteur jëlu ko pour daanu de. Double Moteur jëlu ko pour daanu Quench da koy daan. maa bu ko neexee su ko xaree parce que xam nga lu tax. Quench ko ëpp doole moo ko dàq bëre moo ko ëppi mbokk moo ko ëppi ginnaaw lu leer laa la ndax bari ñi bari ñi heure bu Quench jógee. ñëppay jóg yow dem nga làbbi Coen gis nga ni ko dem naa bu bu kii tamit de. te ay mbokkam seetaanuñ ko. kee waa Rosa bu ñu jógee waa Rëbës li ma la wax. léegi dama la mën naa wax xam nga ni doo doo di jël di dëkkale tey ay fans club ñiy topp Coen xam nga genn wàll ko topp ñu double moteur Coen sa coppi fans fop. moom tamit bari la nag. waa dégg nga li ma la. te noon la ko dàqee bëre noonu la ko ëpp doole noonu la ko mën noonu la ko ëppee ginnaaw. Coen mbaru penc la mbaru dëkk la. Hmm. waaw bi ñu jeexalee Mama Lamine kii comme say Mama Lamine Mama moo des na Papa Sow Siteu sax mais Mama Lamine Garga 2. Mama Lamine Garga 2 combat bu neex la parce que Mama Lamine man dama ko yar jàngal ko bëree ba mu toll fi mu toll. man man da doon lamb rek waaye dañ man ci sama komba ci man ci sama diggante ak Mama Lamine. Mm-hmm. ak combat ma Garga. Mm-hmm. combat bi man ci laay gëmee man ni Mama Lamine la ma defoon ci moom wala ñun li ñu defoon ci moom ci combat ma Garga la koy prouver. ci combat bi ngeen ngeen koy gëmee. waaw parce que xamul tax su dee sañ-sañ da am. Mhm. su dee mën a bëri da koo am bu dee fulla ak fayda da koo am maa Mama Lamine. Mhm. loolu lu yàgg ci moom la depuis bi muy jàng bëri. dëgg ma daan wër ci écurie bi ni ma daan nga ma bala maa ñibbi dama lay dag may daan. man ko mhm. di nga fanaanoo defet waaw te suñu ñëwaatee war a contact contact si bu takkee sër mën day ñëw ni ma damaa bëgg a fayu. waaw man ko xaaral ba ñu paree yow fin ba laay bëreeg yow. gëm-gëm da ko yàgg am. parce que man sama vision ci Kiri Lamsar juróom ñii la ñu woon muy Tonnerre bu Njaareem. Mhm. Pakala Junior. waaw Coens. Mhm. Siteu Maama Lamine. dama ne woon sentel mhm. ay grands champions la ñuy doonee. Siteu moom tamit am na ko moom. yaa ngi dégg li ma kon Maama Lamine. combat bi ak Garga na ko waaj te préparé ko te xam ne dafa am mbër moo xam ne si dafa bokk ci làmb ji muy. Garga 2 Garga 2 champion la te moom tamit. dafa am retard boo xam ne si xam na ne bu jëlee Mama Lamine ndax Mama Lamine dafa nekk xale boo xam ne dafa ñëw rek bokk. am coow waaw am faut mu jël ko pour wanewaat boppam. Mhm. léegi nag Mama Lamine moom it na ko wan ne ko man xale boo la xale boo la xam si fa ma teg sama bët du yow. Mhm. mais nag da ngay liggéey moo la koy may entraînement. Mhm. respecté sa bopp gàtt tànk say mbokk ëmb la nga mën a am li nga bëgg. parce que gargar dafa nekk adversaire boo adversaire boo xam ne dafa dangereux de. Papa Sow waaw combat la combat la combat la li tax combat mooy euh, Papa man dama ëmb nees yóbbu ko mu daan Papa Sow bu gaaw. te boo toogoon nees fii nga laaj ko dinañ la li ma daane tey Papa Sow Matar moo ma ko wax Papa mu nekk mbëre boo xam ne si sob na trop mais ku neex a bëreel la. parce que xamul tax day ndaamal màcc bi muy bëreeg Cheikh Niang mi Kayar maa yóbbu Cheikh Niang keroog tax Cheikh Niang ko dóor wóobat bi di lang Ousa Sow ni ko da ngay àggale combat bi ma dem ba ci papa ni ko papa ndax mën ngaa bëree wala mënoo bëree mun ma tasal combat bi. Hmm? Cheikh Niang du ma bàyyi ma fen. papa ragal. déggoo li ma la wax loolu kenn mënu ko bëree waale laajal Cheikh Niang mi ngi nii. kon Cheikh boobu noonu kenn mënu loo déggoo li ma la bët boobu ku ko mën a bëree koo xam ne sa a ngi ma ñëw ni Cheikh Niang mun a ah, amoon ko làmb ji day tas parce que papa mënutu la bëre ñu def suñu affaire ba tas làmb ji Cheikh Niang mi moo ko defoon. bi muy bëreeg nees ma ni nees mun a ah, amoon ko papa Sow am na rapidité mën naa xeex buy dóor day xool mais sa tànk bi nga koy tegal bii ngay jiital nii dalay lay song te bu te bu la songee day fël ci sa flanc bi lay jaar. mun naa man ko nag lenn laa la mënut a assuré mooy di nga jël ko ku ci combat bi mais Papa Sow heure bu ne la coppet may ko flan bu génnee rek boo defee ren da koy kar fi nga koy daje boo ko dóoree naax day tëdd parce que du ko bëre parce que taay baa tax ñu dem répété loolu ent daaw ko entraîné sax écrit lamsaar loolu dañ ko doon nëbb ba ñu dem nees daan ko kon bu làmb day dox tey làmb di dox si te di ñafe laay fam di ñafe laay fam tey ba dem ba war a bëre Papa Sow Siteu nag ñu bari dañ koo umpale ak ndaanaan te mën a bëree booy boobu li muy bëree sax ëndeegu ko stade ma wax la ko tey Siteu man ni ma ko xamee liñ daan contacté bi ko Cheikh Niang mi di indi Thiès gii ñu fàtte ko sama kër mu tëdd di nelaw ca bappan ma mu tëdd di nelaw ñu dem ba làmb ja ma ni Cheikh Niang booy bi nga àndal mu ni ma nga kër gi di nelaw ñu yeesi ko mu nekk laccax goo xam ne boo ko fëlee mu damm kerek séeréer bi mu fi daan da ko mën wel làmb ji toj fii mm, mm. ba pare ma ko daan géewal écurie Lamsaar Quench bi muy njëkk a ñëw Lamsaar di ñëw damaa damaa bëgg a dugg ci écurie bi benn jiin la sol ak benn tiset ma ñëw mu ñëw ma ne ko sumeekul mu sumeeku ma jox ko benn tiset ni ko kaay bëre si talaa ko njëkk a boole ñu bëre ba écurie bi ñëpp jóg taxaw mbër la de Siteu bu fonkee entraînement am du caaxaan fu mu bëgg a àgg ci làmb da koy àgg parce que dafa mën a bëre. Mm-hmm. am na mille chance nag pour daan Papa Sow. ci hmm. qualité bu mënti doon man maa la wax loolu. ci xeex beeg ci bëre bi ci lépp. lan la war a moytu ci Papa. Papa Sow leen rek la war a moytu ci moom parce que Papa da lay pour xeex ak yow dëgg ci moom bëri ba lay gën a bëgg gis nga turu boobu bu ko fàttee day daan Papa. Hmm. man maa la ko wax. aywa loolu am na solo looy tàggatoo. li may tàggatoo nag mooy di gërëm sama gars yi. Hmm. waaw Mondou Mbaye Safi Baba Galla Cheikh Niang kële suñu rakk la. soxorkale na ko gars yi bàyyi xel moom tamit la kii suma frère la daam kii moom xam ngeen ko grand champion saafi kon di gërëm ñi di gërëm Samba Laobé moom suma suma suma rakk la mais suma xarit la parce que ñoo bokk fi ñu nekk waaw di gërëm waa gépp nag di gërëm ñëpp xam nga beneen bi ci des mooy damay gërëm maire Kër Massar bi waaw moom jàmbaar la ba pare tamit sama xarit la na ko waa Kër Massar gestu jàppale ko beneen bi ci des mooy Euh, dama ñëw fekk fi benn nouvelle boo xam ne lu ma neex la muy Yankhoba Diattara bi ànd ak sa Seck mu nekk jeune jeune talent boo xam ne si li nekk ci boppam bari na Macky Sall la mu def sax xamu ko parce que bu fekkee tey jeunes yu mel ni ba Diattara mu dugal leen ci ci état bi parce que ñooñu dañu mën a produir réew mi dañu mën a jëriñ réew mi ëllëg may félicité président di félicité tamit Yankhoba te xam ne loolu mérité na ko parce que yàgg na ci terrain bi te am na expérience bi loolu daal laay tàggoo du nuyu tamit waa Kër Massar du nuyu ñëpp du nuyu tey suma yaay maa ngi koy gërëm di ko sant parce que moom tamit wax fa dëgg yàlla am ma ku dul moom ku ma jàppale la ku ma soutenir la di gërëm suñu famille di gërëm ñëpp waaw di gërëm tamit soxna yi maa ngi gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn waaw loolu daal laay tàggoo yow Lamine tamit di la gërëm di gërëm waa Lutte TV aussi tamit parce que Lamine wax fa dëgg yàlla ku jara félicité la ku jara jàppale la ku jara encouragé parce que liggéey bu mucc ayib lay def ndax lii mu def nii benn télévision du ko am bu dul Lutte TV ndax ñun dañoo def ci làmb lu nekk marqué ci suñu empreinte mais soo xoolee tey li émission yi nga xam ne moom la leen Lamine di leen génneel day nekk émission yoo xam ne si lu raar lay doon parce que day fekk champion yi nga xam ne dañoo làq woon mu leen di feeñal kon Lamine ñu ngi lay félicité di la encourager nag di la ñaanal tamit li nga bëgg yow yaa ko xam yàlla na la ko yàlla may di nga dem ba ay télé télé lan lay ñaanal mais dama lay encourager man parce que yow ndaanaan nga. yàlla na la yàlla defal jàmm dégg nga jaajëf.